jërë ngeen jëf salaamaaleykum ami internet la puissance TV Jelle bi TV wasaare làmb ak Sénégal Diaspora TV ak Ose TV nuyuwaat nañ leen siyaar leen bu baax a baax a baax ñu ngi ne arène nationale fii la làmb yi di taxawee. waaye ñu ngi jëm ci troisième journée nga xamante ne mooy Serigne Modou Niang mu Niang production le 28 janvier mu war a dox ci diggante ki nga xamante ne mooy carrière bu bawal ak ki nga xamante ne mooy Boy Diop waaye nag Serigne Modou Niang taxawal na làmb ju neex. muy le 28 janvier dañu leen jox ñu nuyoo su nuyoo pare ñu tàmbali li nga xam ne mooy waxtaan bi waaye nee naa dina neex dina saf ndax ñaari adversaire de taille lañ lamb jii moom kenn du ne kii mu ëpp doole kii mu ëpp doole ku ci pronostiqué di nga jum boo jëm nuyu naa la ah, carrière nuyu naa la. waaw ah, maa lay fay aouzu billah bisimilah inna wala yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaraw la ko maam Cheikh Rafal ginnaaw ba nu sant yàlla julli ci bi di sant suñuy ñaari waajur di sant sama Serigne sëñ Abdoulaat Fall Ndar di sant waa Ndar Fall yëpp di nuyu Baye Fall yi nekk foofu yëpp di nuyu fa ma muy Grand Yoff mafia Grand Yoff bi yëpp maa leen nuyu di nuyu bu baax di bool bool nuyu waa Réfane bu baax képp kuy bool bool maa lay nuyu bu baax di leen ziar bu wér yéen tamit ok. mais dinaa jox mu nuyoo Grand Yoff bi nga tudd dafa jege sa adversaire de. waaw foofu laa bàyyeekoo ñëw fii. Ah. oui. ayca boo jëm nuyu nañ la. waaw fay nañ la di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar sant yàlla julli seen bi gërëm suñu ñaari waajur di gërëm suñu sëriñ si Abdou Karim Mbacke borom maa xarimal wax laa waaw di gërëm parcelle un ba vingt six di gërëm waa Boolan ah, waa ngeewul yëpp maa leen di gërëm ma Tóor waa ngeewul yëpp daaru baaxam daaru jëm jëm maa leen di gërëm di leen char waaw di nuyu di nuyu sama waa gàll waa vingt cinq bi yëpp dix huit vingt deux vingt et un parcelle un ba vingt di char ñëpp di nuyu ñëpp asalaam Boy Diop lan moo la dugal ci carrière non mbër la rek comme mbëri moo tax ñu ko hmm. waaw mais est-ce que xam nga ni combat bi du yomb. non ñun bëgguñu lu yomb bu yàgg. Mm. waaw bëgguñu lu yomb. carrière lan moo la dugal ci Boy Diop dégg nga ko léegi tudd na waa Bayal da xam nga yaa tudd waa Grand Yoff moo tax mu tudd waa Bawol lan moo la dugal ci Boy Diop. waaw bu tuddee Bawol loolu problème la. Eh. man moom bool Bawol laa ku xam na durut Bawol lay dawal sama yaram. drapeau Bawol te Bawol Bawol yi dañ yaakaar daa am fu ñu may xool mais du fii mm. fi may bëre nii war maa bëre foofu waaw instant yi xam nga xaar bi yàgg na quoi. fu ne taxaw na laaj ma fa. mais lan moo tax nga ne waroo bëri foofu ay adversaire de taille dafa de marqué ay empreinte mu jóge si victoire. xam tamit lamb ji dafa bëri ay tapet. comprendre nga looloo tax affaire yi demee nii da ngay jël combat mu des ay cinq jours xam nga mu blessé wala mu ne am lu mu déclaré li ma koy ñaan lan la dekk na ma na am taxaw dëggal boppam. loolu rek laa koy wax. boo jóg yaa ko dëkk yaa taxaw yaa takk rajo yi fu ne nga taxaw fa wax. yaa bëri wax wax rek lan laa koy dëkkee lan la fi def ba koy dëkk lan la fi def koy dëkku deful dara ma koy dëkku man dinaa dëkku kii dafa fi tuus ma koy tëkku. li wax amul open press Bécaye. Eh, jege ko micro open open open press Bécaye. Mhm. nga laaj ma li ma wax len la laaj nga ma fexe nga ba jël avance bi ngir jëmi maam si Arafal lu bés baana nga taxaw digal su bopp fii suuf si la suulal say tànk ñu defante lamb ji 2023 bi lamb ji moo si dàq. kii daa bëri wax rek di wax man ma ko moom lañ moom moo am combat am des une semaine. Mm. combat bi yàqu ñu woo ma ne ma yàq carrière man la yéen ko teree neex mu bañ dem jël hôtel Dior. kon daa dawoon sa man bi ma génnee si xeeru ngor lañ ma ko wax man leen bëriwuma kooku parce que instant moom bëreegul sax grand xam nga wax mm. mu taxaw ci télé di bëri wax naan ay dañuy daw sama avance moo tax ma jël ko mais du dërëm kii. yaa daw avance kii ku dut moom sax xoolu ma ko. mais moo lan moo eh, nga daw avance bi. ma ko sax wax caméra bi mu tàkk muy wax loo xam ne nii mooy loolu comprendre nga nit ki ak lu mën a am rek waxal dëgg yaa ngi dëgg kii leen leen rek ay wax ji wax nga ba combat bi taxaw. wax nga ba combat fii laa nga naan wax nga ba combat man naa wax say combat yow loo fi def ba may wax sa combat ak yow ak kan ak kan. man bool dañ maa yaakaar gaynde. yow maa a nekk bool bool pur bool bool bool si ay wax ju bari. daw làqu daw làqu nga doo bool bool. lan moo tax nga ne daw làqu. daw làqu la. bool bool la ñëw fii xoolal dootu nangoo noo nekk bool ñun nag bool la ñuy représenté ay reefan waa barke jëmmi maam Cheikh Rafal bu arbitre soufflé fii nga dëggal sa bopp. kii barki alxuraanu karim laa wax du ma ko areeral maître. ay bagarreur ngeen damay dox si kawam par force. nga da bawal ak sama kaw sama kaw arbitre affaire da bawal ak làmbaay ak tëngéej xam affaire bi loolu da der déggoo ma de. gaynde li ma lay wax leen la rek dëggalal sa dëggalal sa bopp dama la ne. affaire lan rek laa lay ñaan bul yàq lamb ci. le 28 bu ko yàq non taxawal rek lamb yi bëri woon na fi. ma man man man damaa trois combats yoo xam ne blessure laa wax bële damaa ñëw bëre. barke si yow maa xeeru ngor mënuma sukk demi flexion te dama ñëw bëre si. man rus naa ñu may jox avance su góor yàlla avance su góor man du ma genre lan rek laa lay wax le 28 na nga bëri si. kan mooy diriger kuy diriger lamb ji yéen bul yàq lamb ji. loolu rek laa lay ñaan parce que say morom jaaroon nañu fii di wax lii ngay wax. Eh. après du ñu ñibbi du am nu ñuy teg. sa waay man bu ma la fañee sax ma ñëw bëri ak yow. Eh. merci beaucoup <laughs> barki Serigne Bamba. yow xoolal caméra yi nga taxaw nga. li lay wax nekkul si yow te bu arbitre nga wàqi wala ma lekk la. yow ma wax loo yow. ayer mètre du ma ko def. parce que Serigne Bamba bu arbitre soufflé nga taxaw dama lay coob. da ngay eh. coob doo coob ñebe. doo dërëm sëñ bi. yow arbitre soufflé dama du ma. waxoo lu am waxoo dëgg. <laughs> non respectel ñi lay seetaan respectel ñi lay seetaan li neex na ba pare ñi lay seetaan gaynde lii ngay wax nekkul si yow barke jëm yaa ngi daje furul fii yow doo sëggi ngay taxaw fii di bëy wax caméra eh, ay taxaw fan ngeen ma sa daje fan ngeen ma sa daje bu baax ngeen ma sa daje laaj ko ko moo ko xam na ko bu baax laaj ko ñu daje fan sax ñu daje kii xama xamante xaw ma la la li ma sax yow len la yaa may dégg len laa sax yow le 28 leneen saxuma ko yow le 28 bu arbitre soufflé ma nappaaje kan mooy diriger combat bi man sama combat yëpp seetaan man mënu ma taxaw yaay diriger du arbitre booy jóg kan mooy diriger dërëm maay diriger maay dan yaay xeex maay xeex maay bëre maay daan. mais combat bi mën nañ koo xaar ci xeex bu métti yéen ñaar. ci moo ko teree neex ñu taxaw samp jaaga. loolu si moom la des ngeen xeex dix moo ko teree neex. noppali ko cinq minutes. amul noppaleeku sax bu ko neexee. <laughs> kii yëpp du xeex. day wax di rek caméra yi tàkk. waaye barke maam Cheikh Rafal kii du xeex. wallahi alazim maa la ko wax te lii mm. kii du xeex loxoom du jóg. Mm. day yooru baat bu suufulee day dikk xam naa loolu. ah lu wow ko nga fi fekk. <laughs> kon xam nga ne bu amee seen may kaw sa jàmm waxul dëgg man xamala moo la moo yàq sama lamb lu ci bari dañuy ni ñu taxawee ni dañuy taxaw wax dañuy xeex mm-hmm. dañuy taxaw wax dañuy xeex nga ñëw samp xeex ñu suuf la ay waxkat lañ man seetaan nga ma xam nga bu mais nee na na nga samp xeex bi kon yow man ku ne xam na damay faayit loolu moom mënul ñàkk ci lamb ji force la day xeex neex naqari day xeex li ma koy wax mooy na taxaw dëggal boppam rek sasuma ko dara lépp mm. maa koy def boo la ma yaakaar mm. bool booy lu maa yëb fii may bëre du sama place te ci kii laay wane ne fii du sama place. fii kii ci kii nga war a dëkkale kii laay wane ne. booy job ndax ni nga nangu lool. kii du dara. làmmiñ ñoom la yor di wax rek ba xam ne dafa bëri waxkat la kii làmmiñ ñoom la wax rek. non sëriñ Modou Niang sëriñ Modou Niang nag décroché nga lu neex ndax diggante Boy Diop ak ki nga xamante ne mooy carrière ñaari bagarreur lañ te ñoom ñaar ñëpp si victoire lañ jóge kon làmb jooju dina neex ayca looy tàggatoo carrière. waaw damay woo waa grand bu baax di woo Kassoor jëppal Derkele Bawol bàyyiwuma kenn di woo ci mel ni Cheikh Anta du ma ko fàtte benn yoon tey su ma turoo fii ci lamb ginnaaw yàlla moom la. di woo ku ci mel ni Bada Dione di sant ñi ma àndal muy Mamoud bu Serigne Salim xam nga day sonti man bu baax sama xarit sama doom nday sel bu ndaw. comprendre nga di woo waa Castor yëpp waa Bawol yëpp di woo autorité ku ci mel ni suñu monsieur le maire yegg nga see jàpp monsieur le maire maa ngi lay woo Jib Thiaw sama sax combat da may jëndal ay billets bii nag grand combat la damaa bëgg a mobiliser bu baax ba mu fees ñëw sax ko ko ca xaj eh. leneen adiwuma fi <laughs> fulaak fayda laay man fi may bëre du sama place lii dama ko koy wax chaque jour pour mu dégg te si kattan yàlla ci lamb ji la ñuy xamee kan mooy carrière Baol. Ah. waaw ayca Boy Diop looy tàggatoo. kii dafa bëri wax. di wax mais du ñebe. mbaxal la. sëñ bi yow mbaxal nga. man ak yow duma la daan la. si koñ sax buñ dajee ba duma la daan la yow. maa ngi yow buñ dajee si ruq bi sax yow tëb. Eh, barki alxuraanu karim. Eh, te naa la tëbalee balaa lamb ji dama la wax. baax na. maa ko wax di kii tëbal nañ ko. baax eh, na yow tam eh, bu ko tëbal bu ko tëbal bu ko kii yaa ko tëbal. bu ko tëbal eh bu ko tëbal. léegi suñ tëbee nag ma tëbal. déedéet bu leen yàq làmb bàyyi ma tëbalee doo bëri si. bàyyi leen ba le ko wax. voilà eh bu ko tëbal bàyyi leen kii moo gën a xam li ma koy wax dinañ daje feneen fëlul fii la ñam bu rëy bi barke mu am ci tàggoo nga ba pare bàyyi ko mu tàggoo ci tàggoo wooteel waaw bi la léegi kenn du ñëw amul lu mu wax eh, booy jow xool caméra nga xala ko gaasa ga da sax xel bi nga koy màccal tuuti xalaatal maa la gën a nekk bool bool fuuf voilà daw laaxu laa waaw ginnaaw bi sant yàlla jul séeréer bi léegi ñu ngi sant ñëpp gërëm sama doomu ndey sama doomu ndey Brise di ko sant bu baax di sama mafia bi may àndal yëpp ñëpp Youssou Ndiaye këll gi Baye Fall xam ma bawal gaa yëpp maa leen di sant di leen gërëm mm-hmm. Elimane Diop nag daa bëri wax rek di wax eh. xam nañ ko bu baax voilà bon léegi maa woo sama ndijaay mu ngi ba États-Unis maa ngi koy woo di ko wax làmb ji làmbam la xam nga dañ mu jàpp ci bu baax di woo monsieur le ministre Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse ak soxnaam madame Ndour ñu ngi leen di woo si làmb ji ñëw jàpp ji xam nga monsieur le ministre yow suñu leen nga du tey sax avant ji yëpp la ñu ngi lay woo di woo Père Ba di woo Mame Daouda Dev di ko wax mu jàpp si làmb ji xam nga di woo parcelle un ba vingt six di woo ñëpp di woo Père Ba Mansour Ba waa parcelle yëpp ñu ñëw woo ñu ñëw jàpp ci làmb ji bu baax ñu ñëw bëyeeg bërëb bu bëri jàpp ko du ma ko dal. mais turam nga jaar de. toog sama jumtukaay lu ko duma daan ko seen dëkk. lu eh. ko duma daan ko di profité di woo. di profité di woo waa waa waa waa waa Jilaas di woo waa Canaba Seck di leen woo bu baax waa Canaba kon moom dina xam fi may waxee. Eh. waa Thiano maa ngi leen di woo bu baax si <laughs> di woo waa bool di woo waa Jilaas di woo waa ñëpp maa leen di woo di leen di bu baax. yow doo làqu nga. di woo ku ci mel ni. daw seen. ndongo seen bee mais sa tur la jaar de. naa trop mais du ko wax. yaa ngi ci mel ni ndongo seen. bu baax bee yi da siy jàpp. di woo ku ci mel ni bay na. bay na maa ngi lay woo bu baax combat bi sa combat la. kii nag bool leen lañ ma sas rek. du mat daan te si kattanu yàlla lamb ji du yàgg. le 28. le 28 du yomb de. saa Touba maa ngi lay woo si lamb ji bu baax di la wax ne sa combat ah. Mhm. di woo ñëpp daal kii xam ma. saa Touba ñëpp lay ñaanal. la waaw kon kon parce que maam Seydou Rafa li mu lay ñaanal. kon nañu ñaanal ñun ñaar. saa eh, Touba ñaanal leen ñoom ñaar ñëpp. saa Touba ñaanal leen ñoom ñaar. kii gënumaa xëj saa saa sama la bool bool la. Mm. kii day xaar xamul fi muy dugg sax. ayca vingt 28 janvier ak mu ñaa production nee naa du yomb ndax ki nga xamante ne mooy booy booy job su jógee parcelle 1 ba 26 dañuy jog Grand Médine dañuy jog mafia bi yëpp dañuy jóg waaye nee naa la ki nga xamante ne mooy carrière bu jógee waa Bawol gépp dañuy jóg. Castor waa Grand Yoff Colobane Médina Gueule Tapée kenn du des cey moo du ñaa def nga innovation nag troisième journée def nga lu rëy. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waa maa ngi lay woo baax Bamba lamb ji Serigne Kori combat bi la si woo billet yi rek laa leen sas man bu leen ma jox dërëm mais jëndal leen ma billet yi mafia bi mën a ñëw parce que ça dafa jot quoi ñu dépassé fii comprendre nga leen rek laa leen di ñaan waa Kastoor bi yëpp paku naajo xam nga paku tomate booy baara ñu ne xam nga booy yëpp ñu ngi waaj lamb ji barke Seydina Muhammad non kii amul mbooloo eh kii parcelle lay de barke Serigne Bamba du suur ba boo taxawee fii di nga xam ne kii amul mbooloo parcelle lay jógee de kii gars yi gëmuñu ko bilaay du mbër. ayca jaajëfal nañ leen bu baax a baax ayca taxaw leen ngeen photo. su ma ko noqee pare dina xam ndax mbër la wala du ma mbër. problème yaa ngi démarré